mobile moom dam koy wax fooñ ma joxee micro dama koy bàyyi ak yàlla man moo xam lu mu bëgg lépp lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal te nit ku baax la billaahi wallaahi heure boo ko woowee heure boo ko woowee ñun ànd nañu fee mu wàccee ma si centre commercial bu bees bi billaahi ñu koy jox dix mille pour mu def ci otom essence mu sànni ko mu ngi nii billaahi li muy def nii billaahi wallaahi tallaahi ci kanam la jëm billaahi te man de man Pape Sarr maa ngi fii li des sama dund man man nekk fii rek soog mobile bii dootul bëreeg mbaru Pikine billaahi wallaahi loolu suñu ngor sax mayuñu ko ñun bokk ñun waa Pikine suñu ngor mayatuñu soog kii mobile bii di di laaleeg mbaru Pikine billaahi wallaahi non déggoo suñu ngor laalo ñu jël roi bi may ko ko ñu nangu roi bi ci mbaru Pikine jox ko ko non daa am daa déedéet yàqul làmb de dafa am lu ñu ji laa la wax nii dama ne ñëpp mbër yëpp nañu xool nit mobile bii ni muy def nii. billaay wallaay talaay maa ngi koy conseil mbëri yëpp nañu xool kii ni muy lii nii. tey suñu génnee cadre làmb xam nga ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay.